ginnaaw ba ñu jógee foofee ca Médina dañuy daal di rek uh, ba tey wéyandi ak seen journal bi ñu jagleel campagne bi jàll ci seen focus su tey bi uh, tey nag dañuy daal di rek sëgg ci li nga xam ni yenn vidéo mu di mën nañu jàpp sax des parfois mu reetaanloo ñi nga xam ñoo di nit ñi uh, gis nañ ki nga xam ni moo di Abdoulaye Diouf Sarr Sonko itam ñu gis ko ci ay vidéo muy way ak ñeneen ñoo xam ne bu ñu demee si gox yeeg gox goxaati dañu fay daal di def loo xam ne day reetaanloo nit ñi ba sax dañu koy daal di partagé ci li nga xam ni moo di ñu xarala yi dañu leen di bàyyi ngeen xool vidéo